jëf coowal Alune pétrole ak Sall gaz ginnaaw coowal Mbaye Prodac ak Ousmane rapport am na leneen coow lu wuneeti ci réew mi coow loolee mooy coowal Diop jamaam li mu fi suli du ko yóbbu kaso ne ginnaaw li mu waxoon keroog ba doon ci tuumal président Macky Sall Aly Ngouille Jean Claude Mimran ak Diagne yoon dugg na ci wax ji ba démb ci guddi moom maître Moussa Diop ma nga woon ci sûreté urbaine Vox Populi nañu ci ngoon gi ci la ko yóbbu ngir leeral mbir mi Sud Quotidien bi ne maître Moussa Diop ma nga ci sûreté urbaine enquête dina kay ne ko mi ngi ci guddi gi bët setagul ne lim wax su génneewul preuve yi jox ko justice bi tamadu ko ëppi buum journal Tribune di ñu ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu wax ne moom maître Moussa Diop ginnaaw révélation yi mu def keroog jëm ci mine de diamant bu mu ne état bu Sénégal da koo baaxee l'homme des affaires bii di Jean Mimran te pexe ma Macky ak Aly Ngouille Ndiaye ñoo tey sûreté urbaine Aly Ngouille Ndiaye porté na ko plainte di ko toppee tuumaay sos di diffamation Jean Claude Mimran mu mu boole ci wax ji bés bi le jour nee nañu weddi na ba mu set wecc maître Moussa Diop Mimran nee na Moussa Diop waxul dëgg Le Quotidien nañu Moussa Diop ak i jamaam Aly Ngouille Ndiaye plainte na ko Mimran weddi na ko ministère des mines tiiñal nañu ko keneen ko ko weddi moom maître Moussa Diop journaliste ko nee nañu mooy Diagne Ndiaye mi nga xam ne ci journal bi ne li ko Moussa Diop waxal du dëgg wax la ju tegul fenn ay sos la ne ñoom Moussa Diop ma nekk ci loxoy waa sûreté urbaine libération xëy na di ñu wax lenn ca yemu fox démb arme di ngànnaay yi mu ne woon dañ ko livré waa présidence ba ñu ko laajee da ko dëggal jaaraat fa mu jaaroon waxoon la mu waxoon ba nuppi génne ab connaissement jox leen ñu laaj ko ci waxi jamaay mu waxaat ca la mu ca waxoon jaaraat fa mu jaaroon génne waa document yi mu génne leen journaliste yi jox enquêteurs yi ba nuppi nag ne leen wax sûreté ñu garde à vue te su moytuwul danañu ko defeere ci waxtu yi di ñëw Aly Ngouille ñëw yokk ci xar mi karaw dóor ko waa groupe Mimran ñoom li ñu xam ne source mooy nee nañu kii di maître Moussa Diop ak jamaa yi muy wax du waxi dara te du dëgg du waxi lenn lu dul waxi politique kat l'observateur nañu docteur Ousmane Cissé mi jiite société des mines du Sénégal conférence de presse na démb doon andi ay leeral fa la waxee ne suñum réew réew le public moom xëy seppi kenn ci ñi maître Moussa Diop di tumal muy Jean Claude Mimran mi ngi ñuy wax ne bu weesoo li maître Moussa Diop wax ci Mimran procureur bi jóg di ko lijjanti ngir mu leer li leer ba leer mooy Jean Claude Mimran yàgg naa dundee mine bu Sénégal ci naka le public yéen nañu mooy bu ñu fàttaliko 2015 groupe bi jotoon na fi jënd ay part ci Teranga Gold ak ci Baobab Mining ngir mën a am wàllam ci or ci phosphate bi jógee Ousmane ci lii quotidien ak sànni tàccoom yéenekaay bi nee nañu tey la tey ci talaata ji ci la tribunal grande instance bu Ndakaaru di wax ndax dañu koy dugalaat ci liste électorale yi am déet bésub tey bi l'observateur ni mu ko gisee mooy talaata ju fees dell ak yaakaar ci Ousmane Sonko Mamadou Moustapha Ba ministre finance ak budget moo xëy ngar daaju xët mu njëkk l'observateur page ba 5 bu journal bi moom ba koppar di Mamadou Moustapha Ba moo fa wax ne entreprise BTP yi ak établissement privé yi jëflanteek bi na ëllëg président de la république bu Sénégal président de la république bi fi di Macky Sall dina ko fi bàyyil ab volume de financement acquis bu toll ci 861 milliards Lamine Camara di footballkatu Sénégal bi waa CAF tànn démb ba tabb ko mu doon footballkat bu ndaw bi gën a taqe ci Afrique meilleur jeune footballeur africain 2023 moom la soleil national xëy jagleel xëtamu njëkk stade yéene feelu ko ba dañuy wax ne jeune joueur africain de l'année Lamine Camara wuutu na fa Pape Matar Sarr abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su